bi le responsable politique APR di Baye Alla ñu ràññee ko lool ci dëkk bu sell bi di Touba ci ay yëngu-yëngu yoo xam ne daf koy faral di amal gannaaw ba campagne électorale bi tàmbalee njiitu réew mi ñëwoon ci Mbàkke ngir ubbi ko moom Baye Alla Sylla nag jamono ji moom itam ubbi nëb campagne am mi ngi ko dooree ci Touba Daaru Xuddoos foofee mbooloo mu bari nag doon xaar Baye Alla Sylla jóge ci ay bërëb yi fasantikoo ngir dajeek seen responsable politique APR bi nga xam ne musta jóg ci seen wet. muy firndeel niñ ko doon waxee dañoo bëgg rek ci tubaa ci tubaa gii duñ am ak kenn xaar ma yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla dañuy fas yéene fépp fu ñu dégg ñu ni ay militant nga fa yu bëgg a wateel Macky Sall ñu bañ a am xel ñaar ñu dem fa bi ñu jëlee kàddu gi mbégte dëgg moo fësoon ci seeni xar kanam ne ak lu mën di xew pare nañu ngir ànd ak bay Alla Sylla ngir bëgg-bëggam daal di mën a sotti ñu fas seeni ànd ak moom ngir liggéey. moom laa mës njëkk àndal Baye Alla macha allah dafa bëgg lu mu doon dafa dafa fonk liggéeyam Baye Alla mu ñu responsable bu jigéen bu jaaxle ci parti bi. dem nga ci ñëpp doon xaar responsable politique APR bu mag bii di Baye Alla bu mu egsee ci ndaje ma ay tàcc yu xumba xumb moom la ñu ko teeroo jël kàddu gi moom Baye Alla rafet lu baax teertu gi nga xam ne moom lañ ko Touba Daaru Xuddoos di xam le ni lu mu mën dina ko def ngir jàppale ñu xam ne ñoo nekkee foofee gannaaw nag ba ñu ko eggee seen i bëgg-bëgg Baye Alla Sylla taxaw temm seen wet ngir fas yéene la na gunge ci mi leen ndaje nag ci xam ne yoo ko saccagé woon ci dëkk ne rek loolee nag nu ñu ko mën a moytoo dinañu ko def ba mel noonu dootu fi amati. ne ma ko fas yéene wéyale porte à porte baax na mais fas naa yéene tam dajale sama sama askan ba luñ juboo rek ma ànd ak ñoom ci loola bu ñu noppee bañ juboo ci loola ba noppi nag ma jóg dugaat ci biir wi di wax ak ñoom fépp fu ma dégg fu nga xam ne jafe-jafe am na fay maa ngi taxaw rek wax la ma waxoon fas yéene def milliers de terrain rek. loolu ñun préparé nañ ko waa waajal nañ ko bu baax li tax ñuy defaat nii ñu ni ñu bëggoon a def nit ñi am yaakaar guñ amoon ci nun yaakaar juñ amoon ci nun ba tax ñu ñëwoon ñu yàq suñuy bureau moo tax tey ñun dañ koy waajal mais campagne bi ñu bëgg a def lu raw lañ defoon ba yaakaar ji ëppaat yi moo tax fas nañ ko yéenee defaat incha allah. des responsables politique APR yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi jamono ji ñuy xiiroo ko ŋaayoo ci nekk jàpp ne yaa war a ëppale ci njiitu réew mi Baye Alla di ñu xamal ne liggéey bi dëgg ci terrain bi la ngir ñu wàcc saafonteeg ñi nga xam ne ñooy population bi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba ndax bu élection jotee ñu mën leen a fay li nga xam ne moom lañ leen lebaloon